salaamaleykum gars yi naa leen daleen ak jàmm ci Sen Sport 221 balaa ñuy woy ci xibaar yi ñuy fàttali képp kuy gan ci suñu page te abonné ko nga abonné cliquer cloche notification bi loolay waral vidéo bi fu wàcc di nga bokk ci ñi koy njëkk jot dañu koy door ak FC Barcelone bi nga xam ne jamono bi seen ñetti joueurs yi nga xam ne dañoo amoon ay gaañu-gaañu te nekk element yu am solo dañoo dellu si ci ak group bi muy Ousmane Dembélé Frenkie de Jong ba ci ki nga xam ne mooy Pedri ba ñu sukkandikoo ci yenn ci kayit yi xibaar ñi nga xam ne ne ñoom ñett ñi ñëpp tey ji entraîné nañu ak benn xaaj ci groupe bi voilà loolu di wane ne rek fi mu ne ni ñoom pare nañu ngir war a duggaat ci terrain bi waaye nag ki nga xam ne mooy Dembélé moom ni ko kayit xibaar bi relee mooy 99 pour cent moom du mën a bokk ci match bi Barcelone war am seen digganteeg Atlético Madrid ñong koy sentu ci match ba ca top mu wara dox sen digënté ak Rayo Vallecano bala bobu dina fekk mu gëna paré bu dé ki nga xamné nak moy Frank de Jong ak Pedri ñom ñaar ñi japp nañu né am na muy démé sax ñu titulaire ci match bobu Barça war am sen digënté ak Atlético de Madrid kon lolu moy information bi Barça man nañu wax né danaka li dess ci sen équipe bi légui tay ñepp délu ci waat Ousmane Dembélé ak semaine japp ñaar semaine dina mëna délu ci ba wara mëna titulaire bu dee Frenkie de Jong ak Pedri ñu ngi en retraite bu dee benn gàllankoor amul ci diggante bi am na nu muy demee sax ñu dal di titulaire ci choc boobu war a am seen diggante ak Atlético de Madrid. Gravenberch moom joueur Bayern Munich la moom kii xibaar bi dafa biral ne kat jamono bi ñi nga xamante ñoo di waa Liverpool ñoo ngi dégg nga maam préparé benn ndaje moo xam ne war nañu koo am. voilà seen digganteek ñi nga xamante ne ñooy ay représentatif am maanaam ñi koy représenté ci li nga xamante ni mooy wàllum euh, voilà agent yeeg ya ci aju voilà ci àllarba bile loolu la kayiti xibaar yi dal di biral kon loolu dafay wane ne Liverpool jamono bi ñu ngi dox ngir xool naka la ñu tabaxaati seen équipe boobule moom Gravenberch nag dafa nekk li nga xamante ki nga xamante ni jour bu am solo la niki daaw mu def ngan di saison ak Ajax ba Bayern na gis ko jënd ko waaye dañoo gis na kat moom dafa am ñoo xamante ni ñoo ko baare bokk na ci kii di Kimmich ak voilà moom joueur yi la boo xamante ni li ëpp ci match ci banc bi la koy toog te ku xarañ la nag ku mën a la Liverpool daal dinañu amal am ndaje voilà kon ndaje ma am na sax noonu la ko Telegraph xamle maanaam ci àllarba bi weesu kon ca la ndaje ma xew voilà te loolu dafa nekk yoon boo xam ne ci la ñu bëgg jaar ngir dal di teg ci moom loxo te muy xale ba noppi mën a football lool. gannaaw loolu dinañu wax ci ki nga xam ne mooy Thiago Alcantara moom itam joueur Liverpool la moom kayit xibaar dañoo maanaam 2024 ni ki déwén ci la contrat bu war a jeex te Liverpool nag li nga xamante ni moom la ñu bu dee euh, am na nu muy demee daal du ko prolongé xam ngeen ne mën na football lool waaye ay blessure moom daf koy sonal lool. Liverpool nag fi mu ñu ngi lijjanti ku ci mel ne Gravenberch comme ni ko waxee te am na nu muy demee kii di Thiago Alcantara dinañu ko bàyyi mu dem ci atum 2024. ba ba ci saison bii bu jeexee muy été bii sax bu ñu gisee ay eh, koppar am na lu muy demee dinañu ko jaay ndax bëgguñu ko fi bàyyi ba contrat jeex mu takki bagaasam di dem comme ni ko ñoom keeta di defee loolu kayit xibaar bii di Miro moo ko dal di biral Barcelone war a jouer seen diggante ak Atlético de Madrid wax nañ leen ko sànq Atlético rek jamono bi nekk équipe boo xam ne dafa tàng jër ci La Liga rawatina seen joueur bi nga xam ne mooy Griezmann nga xam ne foofu la ca Barcelone la jógee woon dellu si waat ci Atlético ñu gis ne kat moom jamono bi marqué na lu toll ci dégg nga maam 11 bi ak équipe boobu di Atlético de Madrid te bu ñu xoolee kat 10 yi mu ngi ko marqué ci 9 derniers matchs yi nga xam ne joué na ko Atlético de Madrid. voilà jamono bii nag Atlético nekk équipe boo xam ne ñaari poñ képp a kon équipe la bo xam taxwayam jamono bi amna solo kon sok bobu du yomb ben yon ndax jamono bi mu xew dafa fekk Atletico de Madrid nek ci dig formam gannaaw lol dinañ wax ci ki nga xam moy Lamine Camara Lamine Camara bi nga xam kat ancien joueur génération foot la nek fofu la ci FC Metz nga xam fan yi rek don nañu len xamal ne dafa tambali li nga xamanteni moy matsum bi amal digen ñi di wa Metz bi Metz don amal wala ci weekend bi wessu mu dal di titulaire Lamine Camara boobule jamono bi ñii di waa Bayern Munich ak Napoli ñoo koy bàyyi xel kii di xibaar bi li mu biral mooy premier match boobu nga xam ne doon na ko joué ak FC Metz ñooñu dal dinañu yebal seen i ndaw ngir ñëw teewee jongante googu ngir dal di bàyyi xel bu baax a baax gone gi ndax xam ngeen ne kat ay mbiram moom fi mu ne dafa teel a siiw dafa toj li nga xam ne mooy CHAN bi ba ñëpp ne moo war a nekk sax meilleur joueur ñu xañ ko ko mu ñëw ci CAN bi toj ko ba ñu jox ko meilleur joueur kon kooku bu fekkente ne foo ko dégg rek war nga mën a teew ngir càmbar ay mbiram moo tax club yu mag yooyu le yebal nañu seeni ndaw foofu la ca Metz ngir ñu koy bàyyi xel ngir xool ñoom yan anam la ñuy taxawee ci mbir moomu le comme ni ma ko waxee woon rek Pape Matar Sarr yàggul France bi mu fa demee daanaka benn saison la fa dóor ci déwén suñu jënd ko appelé waat ko mu dóoraa beneen sason tam Angleterre Lamine Camara mën na am chance boobu ndax talent bi nekk ci moom ak xale gi nga xam ne moom la doon dina waral ba yenn club yu bëree bëri di ko bàyyi xel comme ni leen ko waxee match bi weesu nga xam ne moo doon premier match bu ma joué ak équipe boobu di Metz lu aju ci free kick yëpp moo ko doon jël maanaam balle arrêté yeeg yëpp maanaam ci tànkam la ñu ko tegoon ndax kat xarañteefam dafa alal di aju ci wàll googu googulee ki nga xamante ne mooy Julian Nagelsmann moom jamono bi Chelsea football ngi dox ci mbiram amal nam ndaje digganteem ak ñi di waa Chelsea voilà ndaje mu njëkk ngir waxtaane lu aju ci mbir moomule jamono bi Chelsea kat ki nga xamante ne mooy Frank Lampard dañ ko dénkandi équipe bi rek mu dal di wéyal ba saison bi jeex waaye faw ñu indi beneen entraîneur boo xamante ne mooy dénkamaa wéyal liggéey bi foofule te Nagelsmann bi la dafa bokk ci candidat yi moo tax ne nañu amal na ndaje digganteem ak Chelsea football club kayiti xibaar bi di Times moo dal di biral xibaar bi ni mel Chelsea googule ki nga xamante ni nag mooy seen président bi muy kii di Toudboly Toudboly bi nga xamante ni mooy jiite liggéey bi foofule moom nag dafa dal dugg ci vestiaire Chelsea football club gannaaw défaite bi nga xamante ne ñoom amoon nañ ko seen digganteeg Brighton. mu doon match boo xam ne dañu leen dóor mu nekkoon li nga xamante lu ruslu la maanaam gàcce la woon pour Chelsea football club ñii di Brighton dal koy dóor ci anam yooyu la bi jongante gi jeexee moom mu dal bopp ci prestation yu yoo xamante ne wane nañu ko moom li mu leen xamal carrément maanaam ni ngeen kersa nga gàcce dëgg la gàcce maanaam lii moom dafa ruutu sax ngeen war di dégg nga maam comporté wu ci matt yu mel nii te kat maa ngi leen di ñaax ngeen jëm bàyyi xel ci match yi nga xamante ne mooy ñëw ci seen kanam maanaam moom dafa leen tagg wala boog dafa leen xas kon ba noppi li nga xamante ne mooy jongante yi nga xamante ne mooy ñëw ci seen kanam ndax nag Chelsea moom bu ñu bàyyi xel jamono bi li muy tegale ci ay résultat taxul ko dégg nga neex loolu te foofu nag ñu jubbanti yëf yi ci nu mu gën a gaaw balaa gën a ñaaw sinon rek maanaam Europa League sax am na nu muy demee duñu ñu fa dem te kat xaalis bu bëree bëri la waa ji def bi mu fa ñëwee ak léegi saison ren bi dafa dóor tuur xaalis bu bëri ci marché bi kon gars yi faw ñu dégg nga maam def effort bu ñu bëggee qualifier ci Ligue des Champions yi au moins ñu dem Ligue des Champions wala sax Europa League takat li ñu gis ni kat bu fekkente ne dakkul moom mën nañu wax ne Conference League la ñu jëm wala sax duñu ca dem ki nga xamante ni nag moom la ñuy wax Federico Valverde gannaaw bi mu dóoree ki nga xamante ne mooy Alex Baena ci semaine bële moom nag jamono bi mën na mën nañu ko daan lu toll ci ñeent match jàpp fukki match ak ñaar loolu kayiti xibaar biral maanaam daan yi ñu ko war a teg mën na dem ba ci 4 match ba 12 match ndax kat li nga xamante dañu daf koo def nekk ne nañ mbir moo xam ne la kat bu fekkente ne maanaam gars yi baaluñ ko dara daan yi dina diis loolu léegi nag daan yi moom wàccagul waaye ñu ngi xaar fileeg juróom-benn semaine dina xam lan mooy tege ci kawam maanaam fileeg juróom-benn semaine moom boo ko déggee mën na nekk sax suba waaye deadline la ñuy joxe maanaam fileeg boobu daal mën nañu teg li nga xam ne mooy ay daan ci kaw kii di Federico Valverde bi nga xamante ni bi jogante googu jeexee diggante Real ak ñi di waa Villarreal ak coow la la ci xewoon yëpp ñëwoon nañu ci mu daal di jox arrêt ki nga xamante ni moom la ñuy wax dégg nga maam Alex bàyyi na kon coow loolu jeexagul moom fi mu ne ay mbiram la ñuy càmbar ba xam yan daan la ñuy teg ci kawam tënk la woon ci xibaar gars yi comme ni ma leen ko waxee woon képp kuy gan ci page bi te abonné bu dee gis nga sa bopp ci li ñi def aboneel te cliquer cloche notification bi loolay waral vidéo bi fu wàcc di nga bokk ñi koy njëkk a jot continuer leen di suivre Sen Sport 221 the news channel